abonnez-vous sur Hamalma TV ngir jëmmal kàddu mag ñi. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokk jullit ñi ngi leen di nuyu di leen si yéen bu baax di leen wax ngeen gën di amal bu baax ci seen seen bi nga Hamalma TV te parce que dootul notification yi ndax suñu dugalee yeneen vidéo yi rek ngeen mën di ko bu baax di leen jégalu bu baax a baax di leen baalu ak ci bis sell bi nga xam ne moom lañ génn. ci bisu tabaski bi di leen baalu àq di wax ci baal leen àq yàlla di yàlla boole bala di teew ko yaay lu bëri yàlla may ñu fekk ko yaay lu bëri waaye tamit di gën a fokk suñu jaamu yàlla ndax jaamu yàlla mooy lépp li nga xam ne moo ñu war fii ci àdduna kon li ñuy ñaan yàlla yàlla yàlla may kàttan bu ñu ko jaamoo te teg lépp lu ñu ko jaamoo rek yàlla ñu ko nagul bi jaay nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam di leen wax ñëwati leen seen ëtt bi di waxtu julli di 30 juin au 6 juillet 2023 ñu ngi salaatu 5 heures minutes suba si ñu ngi koy julli 5 heures 45 minutes tisbaar ñu ngi koy julli 14 heures 15 minutes ñu ngi koy julli 17 heures pile timis ñu ngi ñu ngi koy julli 20 heures 51 di leen wax ngeen gën di abonné bu baax ci seen chaîne bi di Xamal TV te bës ko notification yi ndax suñu dugalee rek vidéo yi rek ngeen mën di ko jot bu baax di wax yàlla na yàlla mi ñu dégg ak topp lépp lu nga jaam rek yàlla ñu ko nangul bi jaay nabi Mustafa wa sallam wasalaamu wa rahmatulah